lii ñu am tey jii dafa nekk xéel gu yaatu ci ñun ndax bokkoon na ci li ñu doon wax nañu dañoo soxla tali bu am ñaari voie tey am nañ autoroute dañoo soxla woon ay tali yoo xam ne yi bëggul warul am ay doodaan ndax dañoo sonaloon tey autoroute amul doodaan njàpp yu bari amul fii moo tax ñu ne autoroute ñun ñu fii jaar nañu respecté code de la route am nañu nag euh, colonel bi nga xam ne moom mooy gérer autoroute bi moom du baal kenn ci oto boo xam ne bi sa lumière na mu war a dem mel meluñu moom du la baal kon ñun ñu yore oto yi ñun ñoo war a assurer oto bi ñu bi ma yore baax na mën naa jaar ci ma jaar fa bu ma jàppee ne oto bi ma yore jaar naa dem jaar ci route nationale ba ndax bu ma paam dabee ma mën a wàcc fii du lieu boo xam ne bii route nationale la ak autoroute bokkut kon nag nañu dimbale rek ci ñun nañu respecté code de la route nañ yor oto yu baax yi gouvernement tamit li ñu mën a jàppale mi ngi def effort waaye na gën a yokk effort booy wax ak def nit ñi nit ñi di ko respecté mais saa boo xawee noppalu rek mu mel ne dañuy fàtte. Mhm. te fàtte baaxul juumte baaxul ci ci oto oto moom saa bu conducteur ba juumee rek jëyi da daal di am moom ku ne mën naa juum mu jikko ba de des sëwër sëwër moom mu juumee rek bakkan lay laaj ba euh, jëy bu rëy rëy. lii ñu indi carte xéwal bi vraiment carte xéwal dëgg la parce que li ñuy gis ci autoroute mooy boo koy jël c'est pour gem bu dem bu gaaw. ah boo jëlee sa autoroute nag ba ñëw fi war a paye nga def fi 10 2 minutes wala 3 minutes wala 4 minutes xam nga ne yéexal nga gaaw bi donc loolu moo tax carte bi nga xam ne danga koy jël boo ñëwee ci poste de péage bi jarul ngay taxaw da ngay romb ndànk rek mais nga teggi sa tànk nag parce que booy romb da ngay def nag vitesse su 20 kilomètres heure ba 25 kilomètres heure maximum comme ça carte bi mun ko liir yëkkati bar barrage bi yow nga jàll donc loolu il faut que ñu xam ne euh, noonu la yëf yi di demee carte bu baax la bu mucc ayib may demander d'ailleurs Sénac SA bi nga xam ne am nañu représentant bu fi nekk ah nañu inspiré wu ci li nga xam ne am na. ñu xool ñoom ñaar nag nan la ñuy lëkkaloo ba nga xam ne tey kii Touba di dugg si Dakar fi muy jaar yëpp amul ben changement bu muy yëg parce que nag discontinuité de service bi moom baaxul ci yëf yi donc loolu war ngeen a waxtaan yéen ñaar rapidement pour xool nan ngeen di def ba seen système yi mën a bu baax ba nga xam passager bi du ko yëg sénégalais la bu jógee Touba ñëw Dakar warul sentir ne dafa am ñaari Sénégal wala dafa am ñaari service yo xamné ni nii dafay am dichotomie donc vraiment lolu ñu ngi ci insister bu baaxa baax. li def ni nak war nañ ci taxaw pour rappeler nit ñi ni ñu wara taxawé ci autoroute ni ñu wara taxawé ci route yoon du ay tiaxan auto bo xamné auto mécanique la. di daw 100 km, 90 km, 80 km à l'heure Boko joré yor ay bakken war nga am noo ci taxawe te nag accident yi lu ci bare bare bare bari ah ci comportement humain la maanaam nit ki mooy indi accident donc oto yi nañ ko dawal ak teeyu bakken dawal ko ak responsabilité dawal ko ci fulla ak fayda bi nga xam ne moom la ñu xamee sénégale yi sénégalais am na loo xam ne moomu ko daf koy jéggaane yar la ñu xam ak teggin ak dëppoo ak yoon loolu mooy sunu culture képp koo xam ne nag beneen culture nga am dañ la war a teg ci yoon moo tax maa ngi félicité Modou Mboup ci discours bi nga xam ne wax na ko fi sans la sanction on n'avancera pas donc wax dëgg yàlla il faut que la gendarmerie et la police multiplient les opérations de contrôle sur la route pour que accident yi mun a wàññeeku bu baax a baax gis nañu d'ailleurs bi nga xam ne commencé nañu les brigades de contrôle mix accident yi wàññeeku nañ toog na ñaari weer yoo xam ne accident bu am euh, gaañu dégguñu ko fi gens commencé à parce que tegg nañ suñu tànk ci contrôle donc wax deug yalla un def appel ministre de l'Intérieur, au ministre des forces armées le gouvernement l'administration de manière générale à continuer à mettre la pression sur le contrôle routier et autoroutier parce que lolu moy tax accident yi mëna